وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة الشيخ سيد محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الله الشناوي الفاسي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبي في إصحاف الخل الوفي بشرح ألفاظ الحزب السيفي الإسناد متصل من أول الكتاب إليه و حظ وحظ العبد منه كمال تمكنه بأن يلتفت إلى الأسباب ويشهد أن المسببات صادرة عن عين القدرة وأن ترتبها على الأسباب أمر ظاهر فقط الله إلى آخره آه، الله يترتبها على كنبو ترتبها du آه، ترى آه، dafa tëb taa bi. Ah, waaw benn taa bi du hmm. ñaareel bi quoi. Hmm. voilà léegi kon euh, gisoon nañ ci jotaay bi weesu ci kàddu voilà fi euh, yegg si woon nañ ci xisbu fii fi muy waxee tur yi alxayu mooy aji dund gi nga xam ne dana dundam dafa sax dàq te waaw dundam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu te dund yëpp ci dund googu la ñu jëlee. moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki taxawu boppam taxawu mboole mbindeef yi alqaadir moom mooy nga xam ne mooy aji am moom mooy nga xamante moom mooy ki nattale mbir yi dogal te am kàttan di ko nattale alqahaar mooy ki nga xam ne moom mooy ki noot am doole mun waaw mun ñëpp alladi mooy yàlla alladi bi nga xamante ne laa ilaha déet buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg laa ilaha amul benn buur boo xamante ne yelloo nañu jaamu ko laa ilaha amul benn buur boo xamante ne jaamu ko dana jariñ te jaamu ko ñàkk jaamu ngay lore illa anta ku dul yow yàlla Euh, gisoon nañ kon alxayu ak alqayumu gisoon nañ baatu alqayumu li muy tekk mooy ki nga xamante ne moom mooy dund moom dafa subsiste par lui-même maanaam moom soxlawul leneen pour mën fee ne pour mën a dund normalement pour mën lépp di dox ci moom normalement avec toute facilité soxlawul leneen lu extérieur ci moom alors que mbindeef yëpp dañ soxla leneen lu extérieur ci ñoom mais aussi que dafa taxaw yeneen mbindeef yi hmm, maanaam mbindeef yëpp dafa taxaw dox leen a taxaw wala euh womal na kon wolif ñepp legi wa hadru abd nak muy wa hadru abd ci lu jambi minu ci lolu kamal tamakkuni kamal moy matu tamakkuni ak jappandelam bi an ci ne yaltafita day day day day euh day won ginnaw day day day gestu ila al asbab jeme ci sababu ويشهد موي سيده ان المسببات النكس ييغا خامني موم لا نيو سببال صادرات دانيو دالاي دانيو генي عن عين تي جيم القدره كاتنوك يالا مي كاتنغي وان تي نه تي تي نيو تك تي نه ترت بوها توفتلا جيمو توفتلا على الاسباب سي سبب ي امر مير لا مو خام تنا ظاهر بو فين فقط كسلا voilà voilà c'est à dire questionnement bi affaire u sabab la voilà c'est-à-dire bi ni muy ajoo ci tur boobu ni mooy à chaque fois dafa war a am benn regard le fait yàlla moom mooy alqayyum kon daf ko war a yóbbee loolu tout temps mooy ki nga xamante ne kon dafa subsisté par lui-même mais aussi sub voilà soxlawul leneen mais moom mooy taxawu mbindeef yépp voilà loolu daf ci war a am jàngee tout le temps moom moom daf ko war a in dafa war a incarner am attachement ci xolam par rapport ak tur boobu ci naka ci ne à chaque fois day gis mbir yi mais su gisee mbir yi day wëlbati ko xool sabab yi <coughs> kon moom du bàyyi sabab yi noonu mais sauf que ci xolam ni muy xoolee sabab yi mooy que ni euh, li ñu sababal mbir bu zaahir la kese moom dafa dafa fee nekk nii rek bu feeñ la kese mais que mais que dañoo génne dafa balle ci kàttanu yàlla voilà mbir yi kon ci kàttanu yàlla lañu balle la génnee directement ce qui ce qui ko moom buy xool mbir mu mu gis rek day gis kàttanu yàlla derrière mbir moom ni yàlla di di di defe mbir mi ni muy génnewee di exister ak changement yi opéré wu ci mbir mi changement yooyu yëpp mooy buy gis buy opéré wu moom du gis ne dafa am c'est parce que lii moo tax lii moo tax mu soppeeku mel nii de déedéet day gis ne kàttanu yàlla moo nekk di soppi mbir bi c'est-à-dire que c'est comme si c'est une main bu muy gis muy soppi mbir yi euh, day gis doole yàlla ak kàttanam maanaam da koy gis ci biir mu nekk maanaam mu muy muy gis comme ni yàlla di di yëngale mbir yi di soppee moom noonu lay gisee tout le temps lépp loolu la koy gis voilà mais et que lii nga xam ne moom mooy sabab bi moom daf koy gisee comme mbir moo xamante ne dafa feeñ nii kese en réalité sabab bi lan la kiiraay mooy xijaab bi mooy kiiraay bi nga xamante ne moom moo tax ba ahlul la mooy xaafiluuna yi mooy way yëgat yi les ñu am distraction les distraits les insouciants <coughs> duñu gis yàlla sabab bi mooy mooy mooy mooy kiiraay boobu c'est-à-dire que euh, euh, ñun comme voilà mbayir yi hmm, mooy sàmbi li ñu xam mooy vous xifé xiifee bu dañuy souf ñom lañ et que lek gi vidéo, ci voilà et que su ma da <laughs> voilà euh, parce que nous langage bobu lañ xam borom wa aussi langage bobu muy communiquer ak à travers langage bobu di à travers li ñu lekk bu leen ciy suural bu leen di aussi préserver seen dund ni ki noonu mbir mu nekk noonu la ko defee maanaam mbir muy waral lu ne noonu la ko defee et puis tamit contraire aussi c'est-à-dire bu ma naanee poison damay dee loolu euh, <coughs> loolu la moo xamante ni dafa feeñ ci biti nii kër yi bu ma naanee poison bi damay lan damay dee voilà et bu ma jëlee sama loxo dugal ko ci taal bi daf koy lakk voilà daf koy lakk bu ma jëlee paaka bu ñëw jaarale ko sama put bi daf may rendi voilà donc yooyu ay ay ay ay ay ay ay ay mbir la yoo xamante ne dañ koy nekk yàlla def ko mu mel ni comme kon bu muy waxe di communiquer ak mbindeef yi mais en réalité la réalité mooy ne yooyu yëpp amul benn bu ci waram bi ci des déedéet sama borom subhaanahu wa moo dogal lii maanaam daf koy dogal faf li nga xam ne moom la ñuy wax ni muy cause maanaam auprès de sa cause mais pas par sa cause mais auprès de sa cause cause bi daf fi nekk nekk symbole mais sauf que ñi gis rek ñi xam ñi ñi xamul cause boobu ni nga xam ne pour pourtant borom bi daf ko def pour communiquer ak ñoom mooy nekk voile bi tax du ñu gis yàlla maanaam mooy nekk bi ñu gis yàlla maintenant loolu dafa laaj ak xeet tekkatal tekkatal tuuti euh, nañu xool euh, maanaam li ñuy wax aada dafa am lo xam te dañ nan wa ha bi dama xukm dafa am shar aqli am aadi am shar'i àq yoyu il faut ñu xamé ko xukm aqli mu aadi ak mu shar'i àq yooyu boo xamante aqli la moy xel la c'est-à-dire que xel bi mo na ba bare benn bu ci nek tamen ñett la dafa am lu ñuy tuddee waajib am lu ñuy tuddee jaayis am lu ñuy tuddee mustahil waajib mooy lu war waajib mooy lu war jaayis lu war mooy comme ni ñu ko gisee ci jotaay yooyu li war mooy li nga xamante ne contraire bi dafa impossible xel mënul nangu contraire bi voilà comme par exemple bu ñu nee Moodu moom mooy papa Ibra ñu ne waaw ñu ne mais Moodu il a vécu 100 ans avant non Ibra a vécu 100 ans avant Mourou. Madame, Mourou papa ji ba c'est-à-dire que li war mooy li war moi, biologiquement c'est parce que Mourou moi, Ibra c'est-à-dire voilà voilà C'est impossible le imaginer contraire voilà Et comme ñu wax euh, euh, euh, al juzou wala albaadu aqallu minal kulli wala boog albaadu juz'un minal kulli lenn li benn partie la ci lépp maanaam mooy <coughs> buñ nee néeg bi ci kër gi la bokk mënuñoo comprendre que ni néeg bi ñu ne ci kër gi la bokk ba pare ñu bëgg a wax ne néeg bi ci jëm bopp moo gën a màgg kër gi moo gën a rëy kër gi loolu du mën a ne voilà donc benn partie ci mbir tout le temps mooy gën a tuuti mbir mi ci jëmmi boppam bu boo ko boolee lépp voilà yooyu loolu mooy waajib léegi mu am lu ñuy wax jaiz mooy lu dagan mooy loo xamante ne dafa possible dafa éventuel dafa contingent ci xel mooy loo xam ne mën naa ne comme mën naa bañ a ne mën naa ne comme mën naa bañ a ne bu par exemple euh, Jean français là, Jean français là. loolu xel mën na yanu ke mu nek deug comme xel mën na yanu mu bañ nek deug dëgg loolu Jean voilà c'est-à-dire que loolu moy hein jaiz mustaxil moy lu ta nek mooy exemple bi ñu sank moy sànq moy papa Ibrahim, ba pare ñu bëgg a ko ni Ibrahim a vécu 100 ans avant muudu loolu ta nek

c'est-à-dire que l'eau boue à 100 degrés ndox boko baxalé à 100 degrés day day bax lolu xel ni waxuko parce que xel mën na yanu que mën na yanu que ndox mi à 2 degrés mu bax wala à à muy mu dem ba 500 degrés do ko bax xel mën nako koo lolu amul dar lu koy dakh ci xel mais ci aada la c'est-à-dire que par expérience la xamé ni voilà dañu yàgg a seetlu ne suñu tégué ndox. buy bu yeggee ba cent degré ñu def température bi ci lay doog a bax loolu aada la voilà yu bëri nag nit ñi dañuy foog ne yu xel la ñenn ñi maam ñi nga xam ne comprendre wuñu ci dañuy foog ne àttee xel la fekk àtte aada la yii yii mooy sabab yi sabab yi foofu lay dugg. mooy loolu mooy expérience mooy mooy expérience moo la ko wan maanaam yàgg gis dara moo la wan ne lii moo xew. li xam voilà ça ne veut pas dire xel ci boppam comme tey par exemple ku jugee cinquième étage daanu daanu ci tëli bi day dee loolu àttey aada la maanaam dañoo yàgg gis ñuy faral di jóge fu kawe bu ñu daanoo ci tël ci kekk wala yooyu dañuy dee wala dañuy damm <laughs> loolu lañ yàgg gis moo tax ñu jàpp ne loolu mais du àtteem xel parce que xel yanu na possibilité beneen bi mooy nit jóge ci kaw daanu ba pare du dee par te dara du ko jot loolu xel yanu na possibilité boobu mais loolu moom moo tax euh, euh, euh, yooyu tamit maanaam du xel moo koy dàq de aada moo ko dàq comme par exemple tey nit ki bu bu naanee poson day dee loolu du xel aada moo ko wax parce que dañoo yàgg gis kuy naan poson de après ñu doog ñu jàngee ci ne ah ndekete kat poson moom boo ko naanee da ngay dee <laughs> mais du xel <coughs> li ñu yàgg gis ku dugg ci taal lakk. wala ku jël sa loxo teg ko ci taal bi mu lakk ko moo tax ñu jàpp ne taal moom day lakke mais loolu du xel moo ko wax xel waxu la mais expérience moo lay wax ne la ah loxo bi kat boo ko dugalee ci taal moom da lay loolu expérience moo koy wax. voilà yu bëri yu mel noonu maanaam xiif lekk xiif suur loolu tamit expérience la du xel parce que amul benn lien direct entre lekk ci jëmmi boppam ak suur ci wàllu xel. ci direct lien direct bi moom wàllu expérience la maanaam ne ah man daal gis naa ni moo tax nga gis bu fekkente ne eh, eh, eh, sans masque gi la boo doon joxee tuuti day daal day mais sàmm bi ni masalan ñoom il faut que teg leen bool bu nga ne nga ne seen xel doog a dal ci ne lii di suur voilà bu bool bi nga ngandul rek da ngay gis ñu commencé découragé seen xel du dal ah jàpp ne duñ suur quoi. voilà parce que lu tax parce que d'habitude dañoo yàgg seet ne ñoom il faut que affaire bi toll nii pour ñuy doog suur moo tax ñuy doog a voilà donc loolu yooyu yooyu expérience la maanaam donc yooyu mooy aada mooy loolu quoi mooy loo xamante ne par expérience mooy aada mooy luy baamu comme même arab ba la mooy aada mooy baamu na répété wu donc par la répétition ci lañ xamee loolu voilà donc loo ko tamit ma teg maanaam taal day lakke paaka day jame day rendee euh, et cetera yooyu noonu ay expérience ñoo koy wane preuve bi mooy <coughs> yooyu yëpp contraire bi parfois day am parfois contraire bi am le seul fait que contraire bi di am moom mooy wane ni loolu moom moo causé mbir mi xoolal tey par exemple bu jëlee exemple lu taal bi <coughs> yéen <coughs> yàlla Ibrahima alayhi salaam dugal nañ ko fi taal bi voilà loolu day wane ni kon même tey xolal euh, ngelaw li comme par exemple moo tax toutes les lois naturelles aada lañ toutes les lois bu xel aadala lañ yi ciy xel yenn la mooy dafa am forme àtte boo xam ne bu ñëwee xel lay def mais am forme boo xam ne mooy yi nga xam ne dafa aju ci bi walla mu aju ci euh, loo xamante ne maanaam maanaam maanaam il faut mu nekk loo xamante ne dafay génn que rek mbir mi dafa naturel nii ci loi naturel la tegu comme tey par exemple euh, nit ki bu taxawee ci ngelaw li bu taxawee ci ngelaw li day daanu loolu expérience moo ko wane parce que dañoo gis ku ku koo def rek day daanu ñu xam ne mais loolu aada la mooy expérience. voilà loi yooyu ci lañ ko établir par expérience dañuy établir loi bon maintenant après dina am tout le temps ay formule mathématique yoo xamante ne mën na la faire accéder ci loi yooyu wala yooyu wala ay formule chimique yoo xamante ne mën na la accéder ci loi yooyu mais yooyu yëpp ci aada la tamit cest à ay loi la yoo xam ne yàlla borom subhanahu wa ta'ala daf ko fi teg muy sabab loolu lañuy ñuy wax sabab ngir mu mën laa wan dara voilà voilà. tey mën naa imaginer mënuma imaginer par exemple dara exister te du occuper benn volume ci espace bi loolu parce que xel moo ko yanuwul wala comme ni ñu ko waxee woon sànq comme par exemple lu ñuy wax dawraan dawraan mun munta am maanaam loo xamante ne buukul la boo xamante ne dafa illogique comme euh, ñu ne ñu ne Samba ngi nii ak démba ak Moodu sàmba moo jur démba démba jur Moodu mu Moodu jur Sàmba maanaam loolu mënta ne dawraan boobu mënta ne voilà parce que lu tax <laughs> même am lu mu sori sori sori mënta nekk voilà xel mënu ko yanu loolu moom moo tax voilà cest ci yu mel noonu ci la ñu xamee comme yooyu d'ailleurs ci la ñu gisee ni par exemple yàlla tamit loolu loolu rek tamit preuve la bu yoon ne yàlla existe na parce que comme mbir mu nekk dafa am cause cause bi il faut mu am fu mu tàmbalee parce que su amul fu mu tàmbalee dawraan mooy am bu amul fu mu tàmbalee rek kii boobu mooy am li ñu doon wax sànq mooy xeetu cycle bu illogique boobu mooy am oui voilà loolu moom moo tax dawraan lu lu preuve daw loolu rek maanaam lu fait que ñu xam ne ci xel mënul nangu dawraan boobu rek mooy wane ni yàlla am voilà parce que mbir mi du mën a dem parce que ci benn cas de kese la mën a demee bañ am fu mu commencé benn cas de figure kese mooy su affaire bi nekkee lu circulaire mooy dawaraan boobu su amee mais comme que affaire boobu xam nañ ne amul ndax mënta ne donc dafa am fu mbir mi tàmbale te mooy yàlla voilà donc yooyu tamit yooyu tamit yëpp ay beneen beneen kii la voilà <coughs> voilà ak mooy am <coughs> tasal mënta ne wala ñu wax tasalsul tam loolu mënta ne mooy loo xamante ne <coughs> mais ci ci cosaan tasalsul ci ci ci ci kanam mën naa ne mais ci ginnaaw mënta ne tasalsul mooy loo xamante ne da ngay teg dara daal après loolu lan la nga ne leneen après loolu lan la nga ne leneen la nga ne leneen loolu mën naa ne ci kanam parce que possible na chaque chaque seconde bu ne boo nga wax ma nangami seconde wala nga wax ma benn nombre bu la yéem bu ne après ma tegal la ci beneen nombre ci kanam mu daal di jeex mais loolu aussi xam nga ci xel la existe parce que jëmmi nombre ci boppam jëmmi nombre un nombre moom ci jëmmi boppam existé wul ci extérieur dans le monde extérieur nombre amul nombre fi mu existé mooy ci xel kese te loolu lan la borom bi subhaanahu wa ta'aala moo def yërmande boobu moo def yërmande bu mag. ci le fait que nombre existé ci xelu nit ñi parce que su existé wul woon dañuy sonn dañuy son trop pour mën di no pour mën wax nangam ci bu doon lu nekk da nga nan ben ak ben ak ben ak ben après do mën tak affaire mais le fait que nombre existé ci xelu nit lolu yërmande gu rëy la gum fi wàcce pour nit ñi diko ko mm. di mën tak ki comme tour aussi comme tour parce que yalla bu wàccewul woon ay tour kon loo bëgg a wax lu nekk il faut nga indi ko ba teg ko ci sa kanam daal di daal di wax ne li <laughs> le fait que <laughs> voilà mbir di am tur ce qui veut dire mën nañu toog man ak yow ñuy waxtaan ci mbir yu bari yoo xam ne duñ soxla dem jàpp ko ba indi ko ba teg ko pour ñu mën cee wax voilà duñ ko soxla <laughs> loolu tamit beneen yërmande la boobu yéen beneen yërmande mag. <coughs> alors que tur ci jëmmi boppam da gis ne boo ko bëggee maanaam nit ki soo ko bëggee définir à travers turam da ngay sonn cest à man mën naa xam mën naa xam Moustapha par exemple ah mais mais munuma du ma mun euh, cest à que bu ma nee Moustapha kese te te musoo xam kan la musoo ko gis musoo ko dégg amoo benn caractéristique ci moom. doo mën a teg euh, euh, définition ci kooku li nga mën a wax daal mooy nee nañ Moustapha la tudd voilà mais loolu mooy ci côté zahir bi ànd ak ni ci côté baatin bi borom bi daf cee def beneen xeetu ngir yërmande bu mag parce que tey Moustapha bu ma ko bëggee ñaanal il suffit que mu tudd turam rek àdduna bi yëpp benn benn système bu déclenché wu boo xam ne day développé wu mais dem ba ci moom dal ko dem ba ci moom dal ko voilà yooyu yëpp tamit beneen xeetu yërmande la borom bi def subhaanahu wa taala loolu moom moo tax kiiwu borom bi moo mais yooyu yëpp nag ay cause lañ te cause yi comme du aada ah kii aada la maanaam cause yi ci àttee aada la dugg duggul ci àttee xel maintenant àttee sharia xam nañ ko àttee sharia mooy loi yi nga xam ne moom la yàlla tëral ne lii dafa baax lii baaxul lii kenn du ko def lii dafa xaram euh, lii dañ ko sopp lii dañ ko sit et cetera yuy farata la voilà ak lii dafa dagante sax voilà donc yooyu ñooy àtte charia yi maintenant àtte xel wax nañ la ko sànq àtte euh, kii lan aada yi wax nañ la ko léegi àtte aada yooyu nag ci la mboolem sabab yu dugg léegi nag ki yeewu moom mooy mën a gis loolu mooy gis ne ndekete sabab yépp ndekete duñu du dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom ñoo tax mbir mi xew mais benn la voile la bu yàlla teg kiiraay la pour mën ma wan boppam wan ma kàttanam ni muy dogale mbir yi saa yi nu mu ko neexee mais ak langage bu ma mën comprendre man et que langage boobu man ma mën comprendre daf may permettre may mën a xam ne yàlla lii la bëgg ci man à l'instant par exemple su ma xiifee xiif bi metti dem ba yegg benn degré bi c'est parce que yàlla dafa bëgg ma wut lu ma lekk pour mën a continuer dund c'est ça c'est-à-dire loolu benn langage la benn genre voilà langage bu yàlla teg euh, sama diggante ak moom voilà par exemple bu ma gisee euh, euh, bu ma waree jàll ci tali bi gis oto di ñëw di daw ak force mu leer ma ni mënuma fay jàll fee te du ma fil mu ma taxaw maanaam c'est comme yàlla daf may wax na la li ma bëgg ci yow tey instant bii ni mooy nga taxaw pour préserver wu le fait sabab yooyu tamit mu teg ko fi

c'est comme si langage la bu la yàlla naan yëkkatil gaaw sa loxo balaa ngaa yàq xéewal gi ma la defal ci sa loxo gi maanaam c'est comme si langage la bu yàlla di waxee ak moom ci sens boobu voilà et cetera toppal loolu ci mboole mbir yi loolu nag moom mooy yi nga xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa physique ak xam ne dafa spirituel ak yi nga xam te ne dafa psychologique ak yi nga xam ne social la économique politique et cetera. voilà donc borom subhaanahu wa ta'ala yooyu la teg pour ñun ñuy mën di communiquer ak moom maintenant ki nga xamante ne moom dafa yeewu day gis tout le yàlla mu ngi wax ak moom maanaam muy gis yàlla ni muy wax ak moom mais aussi muy gis kàttanu yàlla ni muy soppee mbir mi c'est pas parce que yëkkatiwuma sama loxo kër yi affaire bi dafay continuer di ma lakk mais ci aada loolu moom moo tax ñu naan aada looloo tax su contraire bi amee loolu la ñuy tuddee xarqul aada maanaam naan xar baax naan lii lii de ak xar baax la mooy miracle mooy loo xamante ne miracle boo ko déggee foo déggee miracle mooy ne d'habitude yàlla loi générale yi mu tëral ci àdduna bi nii la daan demee mais cette fois-ci dafay wan nit ñi ne leen mën na def contraire bi et que li ko neex mooy am mu changer aada bi. def ko voilà ah ñu naan dafa xar baax maanaam li nit ñi baax a gis la xar voilà moom la. waa xarqul aada. ah d'accord xar baax bi non xar baax wolof la mais xarqul aada <coughs> xar baax ah d'accord waaw mu loolu mooy xar baax voilà mooy. <laughs> <laughs> xam nga waaw. <coughs> moo tax mooy mi miracle quoi miracle waaw donc loolu point la boo xamante ne loolu mbir la mu mat a xabaar mu baax mat a xàmmee léegi nag ki yeewu ki nga xamante ne tout le day gis ne yàlla moom mooy taxawu milieu di taxawu ñëpp moom bu gisee sabab yi dina bàyyi xel sabab yi parce que langage la bu yàlla di wax ak moom ce qui fait day jóg ngir dox ci sabab yi. mais du jàpp ne sabab yi ñoo waral mbir yi cest à day gis tout le loolu côté bu zahir rek la mais yàlla ci boppam moo bëggee mbir mi nangam am loolu moom moo tax bi mu buggulee bi mu buggulee paaka bi rendi Seydina Ismaïl alayhi salaam rendiwu ko bi mu buggulee taal bi lakk maam Ibrahima alayhi salaam lakk ko et cetera voilà lu nekk bi mu ko buggulee mbir mi noonu la demee moo tax ngay gis eh, eh, voilà mais sauf ko borom subhaanahu wa ni muy doxalee àddunaam bi moom lay neex mu soppi ko su ko neexul du ko soppi mais que yow rek yaa war a jàng ne yow yaa war a xam ne ndekete kat sama borom lii la comme par exemple jant bi di jóge est dem ouest jant bi di jóge est dem ouest loolu loolu du xel moo koy wax def expérience la rek maanaam ñun dañoo juddu fekk fi jant bi di jógee est dem ouest mais suñu xel wax mënuñu wax ne contraire bi possible woon wala beneen possibilité amul mënul ne suñu xel munuñu ko jàngal mais comme dañ ko yàgg gis mais nag loolu tax ñu bëri mënuñu xàmmee loolu mënuñu xàmmee ne parce que li tax ñu naan yanuwul maanaam mooy c'est parce que dañ koo yàgg maanaam c'est parce que dañoo mënta xàmmee entre li nga xam ne expérience la ak li nga xam ne xel ci jëmmi boppam moo ko du nangu xel jëm boobu moo ko dul nangu ci benn côté voilà comme par exemple am loolu xel mënu koo yore loolu par contre àtteem xel la xel mënta nangu mbindeef bi jékki-jékki rek existe maanaam xel mënta nangu tapis bi jékki-jékki rek am te kenn amulu ko loolu xel mënu koo nangu moo tax man xawma kan moo defa tapis bi mel leer na leen dañ ko defar man loolu leer na ma xawma kan kan la mais <laughs> loolu mën naa ko waat voilà fii fii nii fekk yow bu ñu koy defal mais leer na ma ne ay nit ko defal parce que lu tax parce que benn mbir jékki-jékki rek amal boppam noonu moo mënta ne <laughs> voilà <coughs> loolu moo léegi en fait euh, athée bi li koy sonal foofu bu borom théorie matérialiste souvent li koy sonal foofu mooy euh, danaan waaw léegi su fekkente ne yow mbir mi noonu nga def maanaam lu ne am na lu ko waral lu ne lu ne lu ne lu ne et nga ne àdduna bi kon ci cosaan nga ne waaw nga ne yàlla moo ko waral nga ne waaw mais pour que yàlla ku ko waral nga ne non nekk naka jekk nga ne mun a demee pourquoi. <laughs> waxoo ne voilà cest à moom looloo koy sonal. mais en fait li comprendre lenn la moy que ni liko sonal fofu moy que ni eh, matériel bi c'est-à-dire biñu àdduna gis ñun univers bi c'est parce que dafa am composition c'est parce que dafa nek en mouvement c'est te loolu moom motax tax mu am lu koy waral voilà c'est parce que dafa matériel loolu moo tax mu am lu koy waral parce que su woon loolu du du du am lu koy waral comme maam Ibrahima alayhi salaam loolu la doon wax bi mu gisee biddiw bi daan ni sama borom ni haaza rabbi gisoon nañ ko ci yaakaar naa yàqu ko xàkkaar fii loolu mu ne sama borom ngi nii après mais bi mu biddiw bi suuxee mu ne man bugguma kuy suux borom buy suux bugguma ko bi weer wi noonu jant bi noonu mais boo xoolee gars yi waxuñu ne ko gars yi newuñu ko mais écoute buñu ñu fonto ah, parce que sa yalla yow tam ken gisu ko xam nga gars yi waxuñu ko loolu xam nga lutax parce que xam nañ né fi fondé wo du le fait que gisuñu ko du foofu la fondé wo mais le fait que mu yëngatu di nek en mouvement bay suux loolu la lool loolu la layee gars parce que le fait que mu nek en mouvement moy wone né gars amna am na lu ko yëngal te liko ko yëngal moo ko doole voilà voilà donc loolu a yi néewuñu ko eh, bu ñu fontoo waaye ñun yow sa yàlla ji ngay wax kenn da ko gisul moom it moo tax gars yi waxuñu ko lool voilà et que euh, voilà et que kon borom subhanahu wa ta'ala le fait gisuñu ko du loolu mooy problème problème mu existence am du lool moy problème bi mais univers bi problème bi par contre moy le fait que mënul jek jek nek fenn xam nga matérialiste yi li ñuy wax moy que univers bi dafa nek ni stagné stagné stagné depuis la pré-éternité mais mu jek jek rek commencé yëngatu nek en mouvement commencé nek en mouvement ñom loolu lañu baax. voilà. voilà non non ñoom euh, mais non mais de que mais que que yëngatu expansion boobu dafa am départ. waaw.

yëngatuwul il faut mu am doole gu ko jañ pour mu commencer yëngatu loolu il faut mu am dans le cas contraire loolu du mën a ne waaw donc loolu moom moo tax seen théorie boobu mënul mënul kii et puis bu fekk na daf fee nekk stagné kan moo ko fi indi il mu am ko fi indi pour mën ko téye <coughs> contrairement ak yàlla yàlla mi nga xam ne moom naka jekk ñun li ñu jàpp ci yàlla maam gëm ko te muy loolu mooy ne dafay nekk naka jekk te du soppeeku alors que univers bi dañ ko gis muy soppeeku alors que yàlla du te mbindeef yi am effet moom alors que univers bi dañ gis mu am ay effet muy change et que même ñi univers bi ñi mu jur dañuy am effet ci moom wëlbati ko am effet waat ci moom voilà loolu mooy différence bi et que cette différence là mu indi lan mu indi la le fait que mu am fu mu tambalé et que mu am ku koy ku ko tambalé alors que yalla au contraire moom amul ku ko voilà mon existence am c'est-à-dire que dafa essentiel ci moom alors que univers son existence n'est pas essentiel essentiel du par essence quoi nous du par essence. alors que yàlla existence am par essence la et que munuñu tamit yanu munul yanu tamit que moom ci jëmmi boppam existé wul mais que bi dafa jékki-jékki existé loolu tax mënta yanu maanaa voilà loolu tax mënta yanu voilà donc maanaam noo wëlbatee mbir mi rek noo gis ne faw yàlla daa am daal maanaam moo tax yàlla dafa am ci xel dafa naturel léegi nag sauf que athée yi dañu bëgg gëmloo nit ñi ne non yàlla dafa am naturel mais le problème mooy ñoom seen bopp mënuñoo arriver pour de démontrer maanaam man ñu ko non seulement man ñu ko démontrer mais que euh, duñ ci nangoo débattre ñoom liñ lay wax rek mooy man nii laa gëm bàyyi ma ñu ma gëm maanaam ñoom seen débat bi foofu lay wëlbatikoo mooy en tout cas je ne crois pas plus ñuy wax ne nan lañu mënuñu comprendre nan la intellectuel li gëmee yàlla parce que simplement loolu nag du par réflexion de ñu bëri nag dañuy dugg ci piège boobu ñu bëri dañ jàpp ne le fait que ñu nekk intellectuel moo tax ñu gëmuñu yàlla alors que c'est faux le fait que ñu nekk intellectuel daf leen waroon pousser ci ñu gëm yàlla mais le fait que ñu nekk intellectuel gars yi dañ leen nax c'est-à-dire que gars yi dañ leen gëmloo ne comme ñun ñii ñoo bokk groupe bi ñu nekk ay intellectuel lañ buñ fi wax wax yàlla ko ñu yëpp yi la ñoom et que gars yi maanaam c'est comme si intellectuel en fait voilà terrorisme intellectuel imposer ko nit ba nga intellectuel bon à un moment donné day wara tek que bon voilà da nga gis que toll da day que <coughs> am def na philosophie un an commencé nan oui bon je suis un intellectuel maintenant et que même l'existence de Dieu j'en doute voilà xam nga voilà donc donc loolu loolu moo koy indi voilà alors que alors que boo taxawee ne ko mais ba lan moo tax nga ciy dute du mën a indi argument bon maintenant am na ñoo xamante ne am na beneen argument bu ñu faral di indi ci existence yàlla ne loolu kiiwul souvent damay gis tubaab yi moom la ñu faral di wax mooy tout la misère du monde bu yàlla ak guerre yi am voilà et que bu fekkonte ne yàlla existé na loolu du am ak lan ak ne voilà et que bi du rek du rek ñi ko gëmul maanaam du rek ñi ko gëmul lay dal mais même ñi ko gëm sax daleen dal et donc yàlla su existé woon loolu du am mais loolu en fait wax la joo xamante ne en fait ce n'est même pas réfléchi xalaatuñ ko tout simplement c'est comme si moi, euh, c'est-à-dire que raisonnement la xam en en en aval cest dire que li nga def en nga def en aval lan au lieu de tàmbalee ci raisonnement bi que ni xol ba xam existe na ba après ñu né wa li moko def day kon day day sañ-sañam day neex am day woné ne nit ñi maanaam malheur yi ñu nekke wala léeg-léeg day woné day woné ne kon mo amna na pour mën len ko teg et que malheur yi du cosaan ci ñom parce que li li preuve mooy saa yu malheur amee ci lañ koy wax ci info yi voilà duñ jék jék mukk daal né wala par exemple il y a la paix en France euh, info kenn du ko wax Hmm? voilà. voilà même nit nit même nit sax bu ñuy wax ay information ci moom c'est parce que maanaam dafa am soit dafa am loo xamante ne ñu bari amuñu ko donc ñu ñu wax ko information wala boog mu am loo xamante ne dafa exceptionnel ci dundam comme par exemple daa am doom wala daa attaque jabar wala yu mel noonu wala mu nekk loo xamante ne musiba bu ko dal la mais bu nekkee ci jàmm kese kese kese kenn du tudd kenn du kenn du ko joxe information voilà comme ni nga xamante ne tey par exemple kenn du ñëw di joxe information waaw man dama leen doon jégal ne euh, Souleymane temps yi dafa dafa nekk dafa am nekk en bonne maanaam loolu kenn du ko jox information. wala wala tey tey dafa doon nekki na. ak añ na mais loolu kenn du ko joxe information li ñuy joxe information mooy xiif ne xiif ay ko xam ñàkk na xiif bu bu koy waaj a rey loolu lañ joxe information wala dafa feebar dama koy seeti yi voilà yooyu mooy information donc ñoom déjà ci cosaan rek ci cosaan rek seen principe boobu day dàq léegi nag mu des beneen affaire <coughs> mooy ngay ngay critiquer ngay ngay duute ci ne yàlla am na ndax loolu day revenir à ce que rek ngay douter est-ce que kii diw moo ko jur parce que daf ko punir maanaam c'est comme ça parce que c'est pas parce damaa punir sama doom que ni juruma ko hein c'est pas parce que euh, euh, euh, dama ko teg loo xamante ne pourtant mën na ko metti comme par exemple xarfal ko mu koy xarfal day jooy surtout day jooy mais pourtant lu baax la ci moom mais c'est pas parce que djourumako ko non su doon loolu la même autorité autorité ça sax dañuy douter seen existence c'est-à-dire que c'est comme si kuy douter ci né président qui amna gouvernement amna parce que tout simplement ma na loi bo xamna ne am na ñoo xam da leen dóor ci kasso bi maanaam c'est comme ngay douter ci ngay douter ci ci ci existence ou hein, existence ou gouvernement ci deuk parce que tout simplement amna na ñu ci kasso bi té ñoom ñoo leen fa duggal seen loi yi ñu tëral ñoo leen juge bi moo leen àtte dugal leen fa maanaam loolu maanaam xeet xel xeetu façon raisonnement la boo xam ne en fait àndut ak réflexion àndut ak xalaat àndut ak yeewute loolu ak ñàkk xalaat dëgg dëgg dëgg moom mooy waral loolu <coughs> voilà donc ñoom dañoo jël benn mbir moo xam ne en en aval lañ ko war a ñu indi ko en raisonnement boo xam ne voilà en aval lañ ko war a teg ñu ni di ko en amont ce qui ba dire que ni ñoom bu yàlla amoon sax loolu du leen mën a jariñ maanaam bu yàlla amoon seenu àtte loolu du leen mën a jariñ parce que ñoom dañoo jàpp ne de toute façon yàlla moom du existe parce que misère bi am na alors que gisuñu ne yàlla moo bëggee nii àdduna lu tax xalaati wuñ noonu ne ah misère bi day wane ne yàlla am na et yàlla moo bëggee nii àdduna lu tax xalaatuñu ne yàlla daf ñuy wan ne comme que àdduna bi yéen misère bii ma leen fi teg problème yi ma leen fi teg moom ngeen àttanul moo leen metti kon na ngeen moytandiku ba àllaaxira lu tax gisewuñ noonu àtt question bi gisewuñ ko sens boobu mais que ñoom dañ choisir benn sens kese mais loolu aussi seen ñàkk xelal xalaat la maanaam day wane ne mooy li Alxuraan wax yéefar duñ xalaat mooy yéef duñ duñ xalaat ah. ak lu mën a xew duñu xalaat gis nga fi mu toll gis nga ni ñu xalaat voilà waaw <coughs> mais yooneen duñu xalaat en fait maanaam mënuñoo comprendre loolu yéeme na le fait que mënuñoo comprendre que yow le fait ñu laal sab yeneen alayhi salaam war na laa mën a naqari maanaam le fait que comprendre wuñu loolu mais lu doy war la te kat kuñ ci saaga papa wala yaayam du na met wala wala sax loolu dégg président tey fi mu toll boo bin bu ci saaga ko day met dañ ñoom ñëppay met dañ lay dañ lay duma kaso bi et pourtant mais mun nañu comprendre que maanaam mën nañu comprendre nit ki comme tey siffler la Marseillaise mën nañu comprendre non c'est grave nangam mais yeneen bi salaa salaam pour ñoom non mais loolu garawul maanaam mënuñu comprendre ne lu tax ngay jàpp ne dafa garaw maanaam c'est parce que duñ xalaat en fait yéeféer du xalaat lan hein. non c'est parce que yéeféer du xalaat si mën nañ comprendre par exemple euh, euh, jigéen ji maanaam sol mini sol qui... yooyu mën nañ ko comprendre mais lañ mënul comprendre mooy yéeféer mooy jigéen du jigéen du muuru maanaam loolu ci jëmmi boppam mun comprendre lu tax da nga leen di boo expliquer mais mënuñu comprendre mais je comprends pas Comment, mais pourquoi mais il n'a pas besoin Pourquoi il cache ses cheveux Pourquoi il cache ses cheveux Pourquoi elle, Pourquoi Donc, voilà, mënuñu comprendre loolu te pourtant mën nañ comprendre xam nga boo tax gis nga borom bi ni muy def maanaam borom bi da lay wan kàttanam tamit gis nga mooy li ñu doon wax léegi que ni en fait ndekete même loolu gis nga àtte aadana c'est pas parce que nit ki day xalaat que ni day trouver c'est pas parce que day jéem a comprendre que ni day trouver loolu tamit aadala àtte aadala maanaam yëpp sabab la saa à boo xalaatee trouver c'est pas parce que da ngaa xalaat moo tax de parce que yàlla moo bëgg nga trouver voilà parce que yàlla moo bëgg nga trouver sinon da ngay gis ñoo xamante ne tey boo leen demee ci loo xamante ne dafa gën a superficiel ñoom dinañ gën a dinañ trouver te yow parfois doo trouver voilà so voilà parfois yow doo trouver ñoom ñu trouver mais soo leen ñëwee ci yi nga xamante ne dafa laaj. beneen lumière boo xamante ne ex voilà bu bu yàlla di def ci xolu nit ki laa yow ñoom duñ trouver yow yow di nga xam nga fi mu toll ñun ñii ñëpp ku nekk mën na comprendre facilement que mais écoutez dafa bëgg a muur c'est son choix mais nañ ko bàyyi mu muur maanaam mais au moment où kii nga xamante ne am na droit. Euh, euh, sol mini ni ñu bàyyi ko kooku sax la waroon tere ndax problème yi muy indi mais ki muuru man indil ma benn problème defu ma dara gaañu waxuma dara ki muuru man sax daf may préserver day tax ba man ah. voilà mais non mais ñoom mënuñu comprendre loolu ah. <laughs> gis nga raisonnement bi ñu simple non mënuñu ko comprendre. est-ce que su naa waaw su ma ba pare dañ leen di respecter aussi. voilà dañ leen di respecter aussi. waaw mais mais mënuñu mais ñoom mënuñu comprendre mënuñu comprendre loolu. voilà mënuñu ko comprendre. yaa ngi yàlla xam. Hmm. mais bon ala xaal li ci jublu woon yëpp mooy ne que ñuy gis tout temps. yàlla borom bi subhaanahu wa taala ni muy tëje maanaam mbir yi et booy xool mbir mu ne ngi gis yàlla kattanam dooleem man-manam sañ-sañam voilà ci di def mbir yi ci di soppi mbir yi ci di def voilà et eh, sabab yi voile rek la côté zahir rek la nga bañ ko xool loolu moom moo tax ku ku ku sabab yi yiir doo gis yàlla yàlla balaa nga koy gis fokk sabab yi nga di ko xoolee comme étant lu fi yàlla teg pour wax ak yow communiquer ak yow mais à travers sabab yi il faut nga am sa xol leer bu koy bëtt mu bëtt sabab yi découvrir nag ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw sabab maanaam mooy kii sababal sabab yi muy borom bi subhaanahu wa mu ne waalam na nga xam ne am na li boor mooy man arifa képp koo xam ne xam na am na woon naka moom buur yàlla subhaanahu wa taala mag sàlla ngam huwa moom alqaa'im moom mooy aji taxaw wal muqiimu mooy taxawal wal qayyumu mooy ki nga xamante ne moom moo ay taxaw boppam te taxaw mboolem mbindeef yi inqataa dana dog qalbahu maanaam qablahu la bind qalbahu xolam anil fi mbindeef maanaam ku xam loolu ku xam ne yàlla moom mooy ki taxaw boppam ki taxaw mbindeef yi moom mooy taxawal yi fi taxaw dégg moo taxawal yi fi taxaw C'est lui qui a dressé voilà l'existence de toute chose je l'ai dressé je l'ai taxawal lu am solo la voilà Mon mon mon subsiste mais mon mon faire subsister il a il subsiste par lui-même il a fait subsister les choses mais il a dressé toutes choses. aussi Maintenant, moi aussi moo teg Pour yi comprendre je xolam day dog wala mbindeef yi maanaam mooy du sukkandiku ci kenn ku dul ci yàlla yaakaaram yëpp ci yàlla rek la ko yaay waqaala wax na abu yazid mooy albistaami radiallahu anhu raximahu yàlla yërëm ko allah bur yàlla taala aji kawe ji xas bu ko doy na la sëkk mi na tawakkuli ci wiiru ci yàlla completement an ne laa doo gis li nafsika ñeel sa bopp naasiran aji dimbali xayrahu ku moom wala du caagin li risqika sa ñeel sa góor sa xaasinan ajul ku koy dëxëñ dëxëñteef li xayrihi kurul moom wala li ilmika du caagin sa xam-xam shaahidan aji seede xayrahu keneen kurul moom maanaam kon doy na la ci nga wéeru ci yàlla maanaam li ñuy wax tawakkul mooy avoir une confiance totale envers Allah subhanahu wa confiance totale boobu mooy tawakkul wéeru ci yàlla complètement wóolu ko ci sa lépp voilà wóolu googu nag mu ngi déjà bala mu mat il faut que li nekk ci sa loxo ba mu leer ne mi ngi nii nga gën a wóolu li nekk ci loxol yàlla que li nekk ci sa loxo ci lay mate voilà c'est-à-dire que li yàlla yor maanaam li nga yaakaar ci yàlla et li nga jàpp ne yàlla moom moo ko yor te moo ko joxe nga wóolu ko ci loolu ak li nga xamante ne dafa maanaam euh, dafa incertain pour yow nga wóolu ci yàlla ci anam goo xamante ne bokkut ak li nga xam ne moom leer na ma ne mi ngi fi ma téye ba pare voilà voilà lii ma téye moom xam nga wóolu naa ko maanaam am naa ci confiance fi mu toll moom lii moom waaw lii moom yaakaar naa ni xëy na bu soobee yàlla bopp du ko metti voilà ah wóor na ma mais ma wóolu nag li li nga xam ne moom la ma yàlla dencal ak li ma yàlla war a wërsëgale ëllëg ma gën ko wóolu ko li nga xam ne jot naa ko ba pare ndax lan ndax loxol yàllaa gën a wóor sama yos voilà loolu mooy mu wóolu ko mais confiance totale boobu balaa muy am nag mu ne day na ci sëkk mooy ne doo gis keneen ku lay dimbali ku dul yàlla c'est-à-dire que ku yàlla tàggat pour mu dimbali la di nga ko gërëm di nga ko sant ndax yàlla mooy wax na nañ leen gërëm nañ leen sant ndax par seen intermédiaire la ko yàlla dogale parce que le fait que yàlla tànn kooku ñu ñëw dimbali la ci benn situation le fait que yàlla choisir kooku ci biir mbindeef fi du hasard c'est parce que dafa bëgg tamit kooku nga gërëm ko nga sant ko nga reconnaissant envers lui yow à moom doo gis lu dul ne yàlla moo ko tàggat moom munu ko woon bañ su ko bëggoon bañ du ko man kenn yàlla rek la dimbali maanaam kon en réalité ci sant gi nga koy sant gi yàlla ngay sant moom ngay gërëm jeex daal moo la feeñu di la wan ne ñëw naa à travers moom d'ailleurs wolof yi dañ ko wax yàlla dikk na waaw dañuy gis ñu nekk ci kii yoo ne day kii benn waay ñëw jox leen ah yàlla dikk na maanaam. yàlla dikk na à travers kooku voilà donc yow yàlla ngay gis beneen bi ci mooy sa wërsëg doo gis kenn koo xamante ne moo ko yor ci magasin woon ku dul yàlla parce que yii yépp dafay am solo quoi parce ak tamit moo ñuy jàll ba pare ak sa xam-xam doo gis kenn ku koy seede ku dul moom maanaam yow li nga xam en fait moom xam-xamam la rek moom xam-xamu yàlla la daf ko feeñal ci yow mais du sa xam-xamu boobu gis nga yii boo comprendre rek ma d'ailleurs du xam-xamu keneen aussi keneen ki dafa obligé daf la ko transmettre rek daf la ko transmettre comme tey gis nga borom bi xam nga yow tey léeg-léeg da ngay gis bi nga nekk boo nekkee xale ni borom bi subhaanahu wa taala da ngay gis da ngay jékki ñu lay teete pour ngay jàng dox te te nga jàng ndox mais pourtant kooku moom moo la jàngal ndox yàlla moo la ko jàngal yàlla moo la mën loo dox bi que ndax ndax li mu laaj aussi physiquement ak physionomiquement ci yàlla la jóge ak tamit ci xel mi aussi le fait xel mi am nu mu mel ba tax partie yi normal ba tax nga mën a dox loolu tamit moo ko def mais kii daf lay tette daf la koy jàngal niki noonu jàppal noonu ki la jàngal nga liir nga ñëw mu jàngal la alif alif ba ta yooyu wala a b c d wala i b c d e, i voilà <laughs> wala yeneen kooku la ko jàngal daf la jàngal rek maanaam moom hmm, en fait du moom moo la koo jàngal dëgg-dëgg mais yàlla moo la ubbee xam-xam boobu sauf que daf ko jaarale ci loxoom moom mais dëgg-dëgg yàlla moo la ubbee xam-xam boobu ni léegi nag boobaa loolu moom mooy am nga fatxu ci côté boobu am nga ubbeeku ci xam-xam boobu xam-xam yépp jàppe ko noonu boo koy comprendre noonu tout le temps da ngay gis ne yow yàlla moo lay xamal yàlla moo lay jàngal voilà mais dans toute chose nag <coughs> voilà moo tax en fait sëriñ bi du moom moo la jàngal yàlla moo la jàngal ci ay loxoom voilà euh, euh, euh, fatfu bi mu bi mu lay bi ngay am ci yenn xam-xam yi wala ci yenn mbir yi yàlla moo ko jaarale moom en fait deful dara lu dul yoon bi rek la la wan comme comme ki lay teete pour nga dox nim la wanee yoon bi mais en ku xel ko ne xam na ni dox keneen jàngalu ko kenn voilà même bu dee daf la jàppale même bu dee am na ku la doon jàppale di la teete teete nangam en fait du jàngalu la ko dëgg-dëgg voilà d'ailleurs xale sax moom même bu ñu ko deful loolu gis nga xale yi fii nii souvent xam nga duñ leen di def noonu mm-hmm. te pourtant dañuy dox voilà mbir bi noonu la demee ci lépp nag jàppe ko noonu boo comprendre noonu rek di nga comprendre ne yàlla moom voilà léegi sa kifeeke yi ci yàlla ngay wéeru maanaam gis nga après ah non mais mooy liberté da nga am ci yàlla daal laa sukkandiku ci laa wéeru ci la ñu mën a am waaw après dans le cas contraire euh, salaamu aleykum ku ne dem jàmm mais nag ci lu ne nag moo tax da ngay gis souvent genre nit yooyu noonu mais xoolal ni sëñ jigéen nee na nee na dafa am benn kii bu ñëw marseille quoi benn benn usine wala wala en tout cas wala btp la entreprise voilà btp la su ma jumu

gaa yi ñu xëy suba teel ñu ñëw gaa yi ñëw mu ne demain mu ne mu ne mu ne kii kii a jeûné benn waaye daal ni man man moom dama jeûné soit man damay liggéey boo gisee ne efficace ma mën nga ma dàq mais moom man damay liggéey quoi damay damay damay woor moom woor moom faw dama koy def gaa yi di des ne gaa yi di des yëpp nopp mu ne voilà léegi yow rek la permettre la ngay jeune voilà gaay yi ci def na non man tamit mu ne non non non yéen ñi ci def yow ku fi wor da na ko da ci rek la fi permettre mu ko voilà voilà en fait bon en fait lool la c'est-à-dire que même mu doon deug la. dafa dafa am yoo xam ne dala koy jaral voilà dala koy jaral parce que sama wërsëg ci loxo yàlla la sama wërsëg nekkul ci sa loxo yàlla da koy jaarale ci sa loxo xëy na mais nekkul ci sa loxo bu ko jaaralewul ci sa loxo dana ko jaarale ci beneen loxo jeex na nii rek la ku mel noonu nag day du si booru kenn day libre day am benn liberté muy bu jéggi day bu yéeme ah <laughs> voilà addunaam day fiir mu nekk ci ndaataata lëx non ay ay ay yenn problème yii nii du ko xam voilà moom gars yi coow am problème bi di inquiété moom moom non moom mais moom ay inquiétude anxiété euh, euh, ah stress yooyu bokkul ci àdduna bu bokk ci vocabulaire dégg nga mu ne suma topp xaalam wax al moom abul al-Qasim rahimahullah mu ne wa amma daal man ki nga xam ne arifa xam ne annahu naka moom bur yàlla al-Qayyum mooy ki taxaw mboole mbindeef yëpp bil umuri ci mbir yëpp nag ah istiraaxa day daal di fiix min kat bi ci coono gaa moom tad ak tadbiir mooy jéem soppandiku ci mbir yi la wataa bi ak ak métitu wala coono ba tey kadd kadd mooy kon voilà en fait coono lay tekki mais <laughs> kadd ak taab dañoo xaw a jegewantoo dañoo jegewantoo li ñu firi daal mooy coono voilà difficulté coono voilà peine voilà peine voilà dégg taab ak coono ak istixaalu di soxlawoo di yittewoo mbir yi tout di préoccupé wu quoi nekk préoccupation fu mu toll waa aacata dana dund bi raaxati ci féexu ak tafwiid joyal mbir yëpp yàlla falam yab xal te du du du nay bi karami yi ci terangam maanaam mooy lu ko yàlla terale du ci nay walam yajaal te du def fi qalbi yi ci xolam li dunya ñeel àdduna kabira qiima maanaam ak maanaam doole gu rëy maanaam poids maanaam euh, valeur voilà qiima maanaam valeur bu mag du ko jox xolam du ko jox àdduna ku xam ne yàlla mooy taxawu mbir yi loolu dafa bokk ci li muy jariñ mooy lan mooy da ngay féex déjà ci le fait que doo fi nekk tout le temps di préoccupé ak di di def ay calcul yu dul jeex ci mbir yi déedéet ak di préoccupé wu maam di def calcul yu dul jeex ci mbir yi to coono jooju dalay wàcc am na benen coono bu lay wàcc moy le fait que ngay préoccupé wu manam di tok di inquiété wu ci ay mbir lo tamit coono boobu dalay wàcc dalay wàcc ba pare le fait que nga joyal mbir yeb yàlla manam nga jox ko lépp day daal nek lo xamantene féex googu day nekk sa xol te doo fi nekk tamit ci li tera li nga mën a joxe teranga gi nga mën a def di ci nay noonu doo ko am te it sa xol àdduna du ci am poids bu rëy waaw waaw dégg nga xam naa ñu yem foofu insha allah ba jotaa bi والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين